nuyu bu baax ak a ziyaar ak di ndokkeel samahat alxalifat al aam alcheikh Mouhamad al Muntaqa xafizahu llahu taala wa raa ñaan suñ boroom may ko gudd fan lool te defal ko ci ak wér ba mu àggale li nga xam ne nëzër na ko liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi ci lislaam ji ak ci réew mi ak ci àddina bi dañu ànd ko ak moom di ndokkeel bu baax it daairat muqaddamatul xidma yéen kañ saa su nekk di ànd ak ñoom seen liggéey bi ñaan suñ borom saa su ne mu yokk leen ci kàttanu biir ak kàttanu biti te defal leen ci tawfiq saa su nekk te defal leen ci barke kon ni ko mbokk mi waxee waxtaan wi mu ngi tënku ci baat yi di al amn wal istiqrar te mooy xel mu dal ñàkk ci dara xel mu dal ñàkk ci dara su xel dalee ay cër dal di dal muy loo xam ne dara gënu ko ci dundu doomi aadama ñaar yooyu nag di xel mu dal moomu ak dal boobu nit di am ana ban solo la am ci dund gi ban solo la am ci dund gi ak it yan cis lay ci lay taxaw ba mën a am yan cis cis lay lay taxaw ba mën a am al amn mooy kóolute mooy xel mu dal kooku de mooy dëddal xaw mooy safaanu ragal mooy safaanu tiit day ñetti baat yoo xam ne yu am maanaa ci dundu doomi aadama digganteem ak boroomam waaye digganteem ak ay moroomam muy al imaanu wal amaanatu wal amnu di jëtti baat yoo xam ne ñoo bokk ay reen ñoo bokk ay araf yu leen composé muy al iman muy gëm yàlla safaan ba mooy weddi ko wal iyaadu billah al amaanatu mooy kóllëre safaan ba mooy wor wal iyaadu billah al amnu mooy xel mu dal safaan ba mooy al xawfu ragal yal nañ ci yàlla ko sax muy ay baat yoo xam ne baat yu bari lu muy dikk ci diine la lu mu bari lu muy dikk da ci alquran bari lu muy dikk ci xadiis yi bari lu muy dikk sax ci waxi Sëriñ Tuuba muy loo xam ne solo bu àgg na ci jàppale moom rek mooy dund gi su amut rek dund gi amut moom moomu nag boroom xam-xam yi ngay xam ne dañuy gëstu ci lan mooy ay am ndax xam ngeen am nu te boo dal mooy sécurité sécurité te ci état moderne mooy nguuru jamono da koo def muy lu yitteel ndax mooy tax nguur am mooy tax population dund ci jàmm mooy tax it yokk ci développement am nga xam ne dañuy wax al amnul qawmi nga xam ne mooy sécurité nationale mu jëm ci armée bi ak nu muy aare li mu war a aar ci réew mi lépp di wax al amnul ijtimaai di wax sécurité ci biir askan wi di wax al amnul aksiyaati di wax sécurité ci biir ëtt politique bi di wax al amnul iqtisaadi di wax sécurité ci biir économie bi di wax sax al amnul ghizaa'i sécurité ci biir dund gi ñu koy sécuriser ba mu doy di wax ba tey al amnul maa'i ci ñenn ñi maanaam sécurité ci wàllu ndox mi di am ndox mu doy kon e état bu jamono moom def na sécurité ay pàcc maanaam waa wàllu wu nekk mu jox ko yitti ak lu koy sécuriser ba mu toll na mu war a toll te mu aaru ba nga xam ne dara du ko jëlgati waaye li ñu gën a ñor nun dañu benn boo xam ne mooy al amnu lijtimaa yi muy dal xel mu dal dal bi ci askan bi ndax dafa mel ne mboolem yooyu ñu tudd yi des yépp loolu lay liggéeyal askan bi lay liggéeyal ngir moom mu am ak dal su ko defee kon am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne lan mooy al amn ñenn ñi wax ne al amn daal buñ dee xool ci wàllu état di xool ci wàllu constitution dañuy wax ne al amn sécurité mooy nga nekk ci situation boo xam ne say valeur say valeur dara menacé wu ko say mbaax say aada ji nga xam ne ci nga mooy moo ci nga tabax sax nekk ak sa jëflante valeur yooyu dara menacé wu ko ñooñu kon fa ñuy xool am nu mooy sécurité fu xóot la xooluñu ko ci kaw tegandaay waaye ñu ngi koy xool teg biir ci cislaay ya nga xam ne ci la lépp askan way tege te mooy ay pas-pasam ay mbaaxam ak jikkoom fekkee ne dara menacé wu ko kon foofu am nu am na am na ñoo xam ne dañ koy xool ci côté économie ak développement ku mel ne Robert Mank moom dafay wax ne al amnu huwa tanmiya sécurité daal mooy développement bu fekkee ne développement amul sécurité du mën a am mooy jàmm ak xel mu dal du mën a am kon moom da ko natt rek ak koom koom koom wax ne réew yi nga xam ne dañuy wax sécurité te mënuñu assurer tabax seen développement développement bu instable ñooñu dana jafe ñu am sécurité waaye al amnu di xel mu dal di sécurité di aaru loolu moom mooy daal jëmm ji muy kenn ci walla mbooloo mi sentiruñu benn menace sentiruñu dara lu ñu ragal ci seenu nekkin ci seen xel ci seen yaram ci seeni liggéey ci seeni am-am loolu su amee rek kon dafa mel ne mbooleem ñiy définir baat bi ñëpp xaw nañoo daje foofu te mooy jëmm ji muy kenn ci wala muy mbooloo mi ñu am ak dal ba amuñu dara lu ñuy tiit am aaru ci seenu ci seeni nekkin ci seeni am-am ci seeni liggéey su boobaa kon sécurité rek am na su ko defee nag alquranul karim am nu ci alquran karim wax naa léegi ne am nu te mooy xel mu dal ak jàmm dafa nekk lu rëy ci doomi aadama nekk loo xam ne it mënu koo ñàkk ngir mission bi ko yàlla jox ci kaw suuf moon koo doxal ndax borom bi moo waxoon ne huwa alladi anshaakum lil ardi wastaamarakum fiha suñ borom nee na maa leen sos ci suuf ba noppi dundal maa leen dundal loo suuf suñ boroom moo ñu bind wàcc ñu ci suuf ba noppi waññi ko dundal loolu suuf kon mission bi moo ñu dundal suuf dundal suuf dundal ko ci dëgg dundal ko ci maandu dundal ko ci defar ko te bañ ko yàq nga baatu astaamarakum sax boo ko dee seet ci baatu imaara ci umru dund te dund boo ko déggee gune ak dundal fokk ruux am fokk ruux am kon alquran karim am nu dafa rëy bokk ci xéewal yàlla yi nga xam ne xéewal yi mag yi la bokk suñ borom di ko may aw xeet bu ñu jaaree ca sabab ya waaye di leen ci sax ñaax nga soo demee ci suurat Quraysh ngay fekk ne muy wax fal yacbudu rabba hada al bayt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawf suñ borom ñi di ñaax Quraysh yi nga xam ne mooy askanu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaax ci lim leen defal gannaaw ba leen aw tiis gaaree tiis bu yàgg woo xam ne xamuñu woon na leen cay génne mu génn leen ci ci xéewal ne leen nag jaamu leen ma jaamu leen boroom nit bii nga xam ne moo leen leel ba ngeen xiifee moo leen jox ak dal xel mu dal ba ngeen xiifee kon suñ boroom dana ko ñaaxe ab jaamam ndax dafa nekk xéewalam bu rëy ci moom ñooñu nga xam ne ñooy Quraysh di bokki sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari saar yi daf leen a gaar dañoo jaar ci aw tiis di nga suuratul fiili kooku aw tiis mutlaq la insécurité totale alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajcal kaydahum fi tadlil wa arsala calayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijil fa jacalahum kaasfin maakul insécurité totale fitna gu daj këpp ci kaw ak ci suuf ndajeer ak càmmoñ fitna joo xam ne xamuñ woon lan leen lan moo leen ci mën a gëri la ko sabab mooy jëmm ju bari doole jooju nga xam ne moo jóge woon yaman war ñey wa ñu koy wax abraha mu ñëw faagaagal makka ne dana ko tas wax ne dana toj kaaba gi ñëpp làqu jigéen ak ndaw waxuma sax mag ña waaye ki nga xam ne muy kilifa ya sax dañoo bàyyee yàlla akub néegam waaye kañ ko bàyyeel doon koo xam ne ku man boppam la moo tax seen tiis woowu nga xam ne mooy saaru fii lépp di aw tiis bañ ca noppee ba jébbal bopp seen bopp yàlla suñ boroom it wàcc ci ñoom saar woo xam ne lépp jàmm la lépp sécurité totale la te mooy bi ilaafi qurayshin ilaafihim rixlata alchitaai wa sayf falyacbudu rabba hada albayt alladi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf kon ñu ñaari saar yu safano bii moom insécurité la muy fitna total bii nag moom sécurité la jàmm xéewal mbégte total kon suñ boroom nii mu mëne lii di ko wàcc saa su nekk noonu it lay wàcce lii saa su nekk kon suñ boroom am nu ci Qur'an di xéewal bu rëy suñ borom di ko may di ko ñaaxe jaaman yi di ci joxe beneen misaal daraba allahu maslan qaryatan kaanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami llah fa adaqaha allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un kon suñ borom joxe misaal dëkk boo xam ne kaanat aminatan mutma'innatan dëkk boo xam ne dëkk bu xel dal la woon seeni xel dana tëriix dal seeni xol dëf ju nekk jàmm ju ma sëkk xéewal di ko dikke saa su nekk ndax it jàmm ak xel mu dal te mooy al amn wal istiqrar moo mën a indi développement moo mën a indi économie bu naat ñoom it ba nga xamee ne suñu borom defal na leen loola xéewale leen xel yu dal xol yu dëf ñu nekk ci jàmm xéewal yi dal di dikk di baawaan leen bàyyi koo fenn fu nekk waaye ñu dem ba mbew ci dugg leen fa kafarat bi anamillah ñu xëy wet bi xéewalu suñ borom bi suñ borom dal di wuutal koolu tëga wuutal ku mbugal ak fitna kon gis nga al amnu dafa jege al imaanu gëm te imaan bi ci boppam safaana mooy mooy weddi kon imaan ci boppam dana jox sécurité ak xel mu dal doomi aadama waaye kufri ci boppam it weddi yàlla suñu borom yi dana ko jox xel mu dala di ak njàqare fitna walladina aamanu wa lam yalbisuu imaanahum bi zulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun borom bi ne ñooy nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm gu sell te bokkaale wuñ ko ak dara tooñuñu ndax tooñ kat day waral fitna suñ borom ne ngëb gu set wécc gu sell wiital ko moom yàlla te boole wuñ ko genn ko bokkaale ba di tooñ borom bi ne ne ulaika lahumul amn ñooñu ñi nga xam ne am nañu xel mu dal te am nañ jàmm ñooñu ñi nga xam ne ñooy gaay jub yi am nekk loo xam ne yédante yi alayhim asalaatu wasalaam ak gaañu baax ñi ñëpp dañ ko yitti woon di ko ñaan suñ maam ibrahim xalilullah alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne mi ngi sanc wala mi ngi tabax kaaba ga te bëgg it njabootam dëkk fa dafa ñaan borom bi rabbi ij'al haadha albalada amina warzuq ahlahu min alsamarat laallahum yashkurun bokk na la mu ñaan suñ borom yow sama borom defal ma dëkk bii muy dëkk boo xam ne dëkk bu amuk dal la dëkk bu am sécurité xel dal fi la te nga wërsëgal aw ñoñam ay meññeent ndax ñu xëy di la sant nga toujours am na ci boppam mooy xel yu dal yi ak dal bi ci boppam mooy jiitu xéewal yi ndax mooy tax xéewal yi ñu ñu mën koo liggéey kon am nu ngi noonu yenn lenn ci fu ko alquran tudd ba tey yonent sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëggoon la ci ay waxtaanam waaye ku ko bëggoon la ci ay ñaanam wax nañ ne su weer yu masaan teru weer wu masa teru day ñaan ku bari woon ñaan yàlla la day ñaan wax ne allah allahu akbar allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman bis salaamati wal islam wax nañ su weer masaan teru day wax ne allahu akbar yàlla mooy ki màgg mooy aji màgg ci daal ne ko yow sama borom weer wi teru yàlla na nga ko terul ci suñu kaw yàlla na nga ko terul ci suñu kaw ci ak dal ci jàmm ak xel mu dal nga teral ko ci suñu kaw mu ànd ak xel mu dal waaye mu ànd ak gëm la mu ànd ak jàmm te mu ànd ak lislaam waffiqnaa limaa tuhibbu wa tarda te nga may ñu tawfiix waxtu nekk ñuy dox ci li nga xam ne moom nga gërëm te moom nga bëgg kon lu mu fonkoon la bari na trop ci ay ñaanam soo ñëwee ci sëriñ Tuba radiallahu taala anhu moom it wàllu ak dal lu ko ñoroon la mu daan ko digle daan ko jàngale nga fekk ko ci ay téere yi xam-xamam nga fekk ko ci ay téere yi nga xam ne téere yi tërbiyaam nga di ko fekk téere yi nga xam ne ay téere ñaanam la soo demee ci téere bi nga xam ne mooy matlabul fawzayn matlabul fawzayn da ngay fekk ci xëtu jikk wa ci bind yu jikk ya muy wax ne tuuba xarafaha allahu taala min kulli makruhin makruhin wa maxuuf tuuba yal na ko yàlla sàmm ci lépp loo xam ne lu ñu ragal la ak lépp loo xam ne lu ñu sit la nga dem ba ci biir nga fekk fa muy ñaan ci téere boobu mooy téere bu jëkk mooy téere bi nga xam ne moom lay wax làkku dëkk bii nga xam ne damay wax ne matlabul fawzayni ak matlabu shifaa yi ñaari matlabu yii benn bi moo yor planification dëkk bi lu sëriñ bi bëgg mu am ci dëkk bi ci dolliku zahir ak dolliku baatin sëriñ bi tudd na ko ci plan bii nga xam ne mooy matlabul fawzayni ko mooy planifier cité bi matlabu matlabu shifa yi nag bay wax ne mooy pacte de citoyenneté bi ci fi nekk ci yan comportement la ci war a nekk ci ay jikko ci ak yaatu ci bale ci toroxlu ci dimbalante ci bëggante kooku ngay fekk ci matlabu shifa ñoom ñaar dañuy ànd kii moo rëdd dëkk ba planifié ko installé lépp li fi war a nekk kii nag moo dikk wax ki fiy dëkk ana lan mooy condition citoyenneté ba war a dëkk ci dëkk bi muy yu ànd yu am solo te li mais ci matlabu shifa yi lépp bu ko dee xool sëriñ bi da ciy fàggu ak dal da ci fàggu jàmm da ci fàggu ak juboo da ci fàggu ak nangoo dimbalante ak toroxlu wut yàlla te wut xam-xam ila axirihi ak sàmm ak wir wir bu yaram wiru xol moom da sëriñ bi sàmm nga dem ci biir matlabu tawsin nga fekk ci wajal xarimana xariman amina wa kun bi xasbihi kafilan domina waaw ma ngi koy xam ne ko suñu njaboot bi na nga ko def muy njaboot boo xam ne njabootu bu dal xel la njaboot bu am sécurité wa kun bi xasbihi kafilan domina na nga warlu na nga warlu ak wattoom wattu ko wattu ko ci lépp loo xam ne lu koy gaar la ci safan di ko bàyyi ko fenn fu nekk حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجب لها الخير من الجهات الست nga toujours li wax dafa mel ne foo fekk am na rek day jiitu ba noppi xéwal yi doog a agsi ndax ki ne ci am na mooy tare xéwal waaye ba tey mooy tare liggéey développement ak xéwal wala sax day wax ne soxla su nekkee ñaar bopp sedd soxla bu dee ñaar bopp sedd bopp bu seddut doo am benn soxla bu dul bopp sedd ba noppi kon fekk jàmm am xel mu dal am ak dal am ba noppi leneen doog a dikk ñu mën koo jëriñoo wajbu laha alxayra min aljihaati sitti wakfiha an il afaati ñaan boroomam na xéewal yi dikk ci njaboot gii nga xam ne wàcce na ak dal ci ñoom wàcce xel mu dal ci ñoom xéewal na leen bàyyi ko fu nekk ci gox yi juróom-benn di bàyyi ko fu nekk di ñëw ci ñoom te it na ko fegal moom waa dëkk bi na leen fegal lépp loo xam ne dàq la lépp loo xam ne musiba la kon am nu bi lu am solo ak dal xel mu dal ñàkk am dara loo ragal nga dund dund gu dal buñ dëkkee ci importance su sécurité boobu dal boobu ci askan bi damay wax ne moo tolloog dund bu fekkee ne ak dal amut xel dalut ak dund amagut bu doon askan ma ne ñoo bokk ndeeg bàyyi mooy bi ëpp ci solo loo xam ne des na ko fàggul aw askan balaa nga koo fàggul leneen lu dul am nu lu dul ak dal muy fitna wal fitna wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl borom bi moo ko wax fitna moom jàmm ci la lépp xaj mu bëgg wala fu wax waaye fitna moom moo gën a metti sax dee wa demee ci tabar yi moo wax ne al wal fitnatu mooy al kufr gis nga ñi nga xam dañoo am ngëm te bokkaale wuñ yàlla dara borom bu ne woon lahumul amn am nañ ñoom sécurité am nañu dal kufru ba tey nee nañu fii mooy al fitnatu kooku ku nekk ci kufru na nga xam ne fa kafarat bi anhumillah koo xam da nga faa bàyyi ngën tànn kéefër sa dund nekk noppi naa jeex kon al fitnatu moom ashaddu min al xatli nee na moo gën a tar sax rey akbaru min al xatli nee na sax moo gën a rëy rëy xel mu dal moo mën a garanti bépp projet boo xam ne bépp naal boo xam ne doomi aadama ji am na ko wala askan wi am na ko mën koo topp ba mu sotti la cay bàyyi ko ci aw yi bàyyi ko ci sécurité ci boppam akuk dal buñ ko dee xool indicateur la boo xam ne ñuy gëstu ci wàllu développement li mu représenté ci wàllu développement pourcentage bu rëy rëy la bu ñu wax facteur de développement mooy njëkk fi nga xam mooy tax yokkute am ci askan wi ak dal ak xel mu dal da caa doon pourcentage bu rëy rëy rëy bu amut su boobaa développement du taxaw su boobaa liy waral développement lépp day mujj moom it dafay dàq kon pourcentage développement économique ak développement social na nga tegu ci la ëpp ca dal ga nekk ca askan woowa ak xel yu dal ya fa nekk moo xam dalu politique la ñuy wax ak dalu social bu fekkee ne ak dal am na développement mën a am da nga koy xool fi mu ne prix yi saa bu fekkee ne ak njàqare am na dugg na nit ñi fi nga koy xamee da ngay dal di gis ne marché bi fii day daal commencé manqué ndax ña koy defar dañuy daal di taxaw wala ñu wàññi seen loxo ndax dañ dul xam fu muy mujj saa bu marchandise ma tàmbalee néew nga gis prix yi tàmbalee yokk su ko defee lan la produit production bi day daal di commencé di arrêté prix yi daal di yokk économie bi daal di tàmbalee di ralentir di taxaw ak ñàkk dal di dugg su ko defee kon dellu gannaaw dal di dikk naka noonu bu fekkee ne xar stabilité am na nga xam ne ñëpp dañuy mën a xëy ci li ñu war a xëy kii jàng bu xëyee mën a dem ci daara ja jàng kii liggéey bu xëyee dem ci liggéeyukaay ba liggéey yi kii jaamu yàlla mën a dem ci jàkka ja kii tukki mën a war wata dem tukki kii ziyaara ji kilifaam mën a xëy dem ca moom kii faju mën a faju ji boroom xam-xam bii gëstu mën a def ab gëstoom nga xam ne secteur bu ci nekk bu fekkee ne jàmm am na xel dal am na kenn ku nekk boo xëy mën a jëm ca la la nga bëgg a jëm jëm ca ak xel mu dal boo ca àggee def ca la nga ca war a def lool ci loolu la askan bi di yokkoo waaye bu fekkee ne xëy nañu nga xam ne ak dal amut kii jàng toog ñu ne ko toogal ndax wóorut ki liggéey ñu ne ko toogal ndax wóorut ki jaamu jël ñu ne ko bàyyi ko toogal ndax wóorut ki jig di tukki ñu ne ko toogal ngir wóor ndax wóorut kenn ku nekk la nga doon def da ngay arrêté ba ba ngay am lu wóor nag am lu wóor mooy ba ba ngay am ak dal ba ba ngay am xel mu dal kon lëkkaloo bi nga xam ne sécurité ak dal da koo lëkkaloo ko yokkute ak askan ci wàll yëpp kooku lëkkaloo goo xam ne lëkkaloo gu saxla te te lëkkaloo boo xam ne lëkkaloo bu wóor la saa bu fitna amee lépp dal di jóg mboolem luy yàq aw askan lu yàq économie luy déstabiliser nit ñi saa bu fitna jógee rek lépp jóg prix yi dal di yokk sàcc ci sàcc ci dal di jóg agresseurs yi jóg ñu yokk ñu yokk ñu yokk prix yi marchandise yi dal dal dal di dal di néew ñi nga xam dañuy tàmbali di fayyu di venger di fayyu ci aw nit wuñ mere woon dal di jóg ñii song yi fi jàmbur yi di ko yàq ñii tàmbalee créer marché noir boo xam ne dañ koy aaye gis nga fitna saa bu amee lépp dundi doomi aadama lépp loo xam ne moom la doon yóotu ci dalam day dal di gendu gannaaw comme safaan boo xamee ak dal am na moo tax ak dal dafa mel ne mboolem diine yi jóge ci yàlla suñ borom yépp dañ ko doon woote ci di liggéey ci doomi aadama yi ngir ñu am ko mboolem bi civilisation yi nga xam ne doomi aadama da koo tabax ci kaw suuf yépp da koo tabax doon wut sécurité doon assurer sécurité yépp mi ko doon tabax ci kaw sécurité te ci kaw sécurité ak dal ci lañ doon assurer loolu ci lañ ko doon garder et ci loolu kon su ma nee lan mooy al amnu lijtimaai te mooy daluk askan bi sécurité askan bi ñu ne mooy doomi aadama ji muy kenn ki muy mbooloo mi nekk ci waxtu woo xam ne waxtu yoo xam ne jamono yoo xam ne yëg nañu seen bopp xel mu dal tëriix amuñu genn ko ragal ci kulliyaat xamsi yi nga xam ne moom la seen borom jox leen muy juróomi yëpp yoo xam ne wax nañ mboolem diine yëpp sariya yëpp dafa ñëw ngir sàmmal ko doomi aadama doomi aadama bi saa bu ñu toogee ba yëpp ni am nañ sécurité amuñu genn tiitaange ci seen àq yi seen droit yi ragaluñ ci kenn ku leen ci tiital moo xam tiital goo xam matériel la moo xam tiital goo xam ne moral la moo xam tiital goo xam ne léegi day am moo xam tiital goo tiital goo xam dañ koy séedu ci kanam doomu adama saa boo xam ne amul benn tiitaange ci droit am yooyu kooka fa boobaa moom loolu la ñuy wax al amn bi cimaa yi kulliyaatul xamsa yi nga xam ne mooy juróomi yi fee nga xam si borom da ko koo jox di ko ko sàmmal te di ko sàmm loolu ñëpp mboolem diine yi yonent yi dikkoon ngir di ko sàmm mooy am diineem mooy am xelam mooy mooy mooy alalam mooy bakkanam mooy mooy daram incha allah dañ ci ñëwaat kon loolu saa bu dajul ci doomi aadama ji rek kooku am na al amnu lijtimaai am na sécurité sociale léegi foofu nag dal googu nga xam ne noonu la amee solo réew mi ñu nekk dinaa dikkaat ci lan mooy dal yii nga xam ne nii la amee solo yan ñoo yan feno ci lay mën a taxaw doo ko am daañ ci tudd kenn yu baree bari la waaye dañ koy tënk tënk ci yoo xam ne jàpp nañ ne bu duppee i gis yëpp dina ko mën a fekk bokk na ci mooy diine na am ndax al amnu ruuxi wal amnu nafsi yi tax doomi aadama xelam dal lahu ulaika lahumul amn fokk mu mu am diine kon kooku cëslaay la benn cëslaayu ñaari mooy benn état boo xam ne bu stable la ndax état bu dal mooy mën a gérer population boo xam daay dund ci ak dal kon état bu dal mënu cee ñàkk kooku benn mu xawin la bokk na ci adala muy justice boo xam ne dafa tëdd njaaxaay naay di jëfante nit ñi ci benn nattukaay te mooy dëgg rek kooku fokk mu am ci mu xawin bi la bokk taatu wulaati al umur aw wulaati al amr di topp kilifa yi moo xam kilifa diine yi wala kilifa yi aada yi kilifa yi yàlla samp ñu askane askan bi jaboote njaboot ñu diggal leen di leen topp kooku ba tey moom it ci cëslaay yi la bokk bi ci def di juróomeel moo di ñu am iqtisaad boo xam ne mi ngi taxaw di dund ndax kat laa abna ma al faqr Socrate di bàyyi philosophie bi dalan wax naan alfaqru abu sawra wa abul jarima ñàkk mooy bàyyi fipp waaye mooy moo leen délinquance boo fi gis kon fokk mu am ñu créer liggéey créer développement ba nit ñi ku ne mën a amum xëy kooku daañ ci ñëwaat bi ci mujj juróom-benneel mooy ñu am i'laam te mooy média boo xam ne média bu am iltizam la ci xatt bi bi nga xam ne moom la média war a taxawe te bañu nekk média boo xam ne li ñuy mënal di ci yenn pays yi média ba ngay mel ni rajo de mille collines nga xam ne daanaka jaxase yooyu rek lay def yooyu yëpp daañu ci ñëwaat fokk ñu am média boo xam ne média bu équilibre la bu nekk ci ligne boo xam ne mu ci la ci la ci la ci la ci la war a nekk kon juróom benni cëslay yii daañ ci dikkaat su ko waxtu mayee dañ dina ko dikk ci wax ban importance la am ngir xalq ngir amal yi nga xam ne mooy sécurité bi nga xam ne moom dañuy wutte mooy al amn wal israr te mooy xel yu dal ba nga xam ne nit ñi dañuy ànd ak dal ci seen wet yi waaye foofu nit xool tuuti suñum réew ana fan la toll ci bu ñuy natt ci wàllu ak dal muy lu am solo dama dal ci benn ci sama gëstu ci benn étude boo xam ne kuréel bu ñu wax CRES moo ko defar CRES nag kuréel la boo xam ne kuréel bu fullawul la ci ay étudiants ay ay enquêtes am pays yi dañ koy jël réew yi dañ koy jël di ko defal ay enquêtes ci ay secteurs yoo xam ne bëgg nañ faa am ay données ay données yu wóor ay données yu fiable CRES mooy mooy mooy mooy mooy kuréel la daal boo xam day day gëstu ci wàllu économie ak sociale dafa génn benn document boo xam mi ngi ko génn ci deux mille vingt et un bii nga xam ne moom it da doon dëgg ci wàllu dal bi am wal istiqraar dal bi ci réew mi ana yan béyu la toll dana ca fekk ca lañu génnee muy wax ne depuis mille neuf cent depuis depuis deux mille quatorze ba ci deux mille vingt et un bi ñuy génne njàngatam bii fekkoon na deux mille quatorze fekkoon na criminalité bi muy njaaxum yi ak délinquance bi ci réew mi toll woon ci quarante trois point quarante trois deux mille quatorze bi ñu agsee ci deux mille vingt et un bi ñu ko sootee léegi mi ngi ci soixante trois kon yokk na vingt poñ insécurité bi sentiment d'insécurité et d'impudicité da koy tudde te mooy yëg-yëgu nit ñi ci nga ne nekkum ci sécurité ñu ab dañoo amuk ragal ak impudicité mooy ñi nga xam dañuy jàdd yoon di jàdd ba noppi te yoon du dal seen kaw noonu la tuddee document bi mu wax ne depuis 2014 ba ci 2021 criminalité bi buñ ko dee wax mooy càcc geeg rey geeg viol beeg et siif geeg dugg kër nit dajji ko dugg fa dem ci magasin nit dajji ko xeetu yooyu biñ ko seetee ci 2014 mi ngi woon ci 43 poñ biñ agsee 2021 mi ngi ci 63 poñ nga xam ne kon yokk na insécurité bi ak impunité bi yokk na 20 poñ mu wax it ne maanaam sentiment bi nga xam ne nit day ne ci këram saa su nekk mu tiit defe ne mu tiit defe ne am na ku ko fi mën a fekk def ci moom violation def tooñ ko agressé ko sentiment ne ci sa biir kër te saa su nekk nga ragal ne yow day yaa ngi sa biir kër waaye mën nañ la fee fekk fab sa bakkan wala ñu agressé la nee na sentiment boobu 32 la woon ci 2017 ba ki mu ni nii bi étude bi génn 2021 nee na ki mu toll woon bougéwul mètre bi maanaam munta wàññi ko nekk sa biir kër ba noppi nekk ci njàqare ne yow saa su nekk violence mën na la dikkal bàyyi ko la fenn fu nekk waaye ci biir njàngat boobu ba tey muy wax ne nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci seeni quartier di dund maam insécurité maanaam tiit defe de saa su nekk yow lor mën na laa dikkal nee na foofu biñ ko seetee natt bi def na 63 pour cent téeméer boo jël juróom-benn fukki nit ñi sénégalais yi ak pour ak ak ak ñett 63 yi ñu ngi ci insécurité saa su nekk ci seen biir quartier defe ne quartier bi ñu nekk saa su nekk def ko tuj sàmba buy yi mën nañoo accès moom agressé ko nga loolu doy waar la téeméer bu nekk cent trois pour cent ci seeni quartier loolu lañ jàpp ci nekk ci biir kër moom it li ma wax léegi mu laaj ko ci enquête bi fukki weer ak ñaar yu mujj yi nga nekk ci biir kër na nga def ak sentiment insécurité defe ne saa su nekk agresseur wala ku fab tayif war na mën a dikkal kooku ba tey 32 pour cent téeméer boo jël fanweer ak ñaar ñu ngi ci état boobu état d'insécurité boobu nekk sa biir kër te jàpp ne saa su nekk nit war naa mën a jël jël sa bakkan wala mu gaañ wala mu jël sa àll wala mu def la leneen ci fukki weer ak ñaar yu mujj yi nga xam ne moo jiitu 27 septembre ci 2021 su ko defee ki nekk ci barabu liggéeyukaay ndax ki wax nañ ki ne ci quartier 63 pour cent ki ne ci këram 32 pour cent ki ne ci bërëbu liggéeyam kooku enquête yi fekk na nde ne mi ngi ci bërëbu liggéeyam waaye lu mat 12 pour cent ci ñoom 12 pour cent téeméer boo jël nekk seen bërëbu liggéeyukaay ñu ngi séenu ne saa su nekk am nañ ko ragal ne man lañu lañ leen def ay violation violation morale maanaam xas la wala ñu doyadal la wala wala wala ñu manqué la wala wala yu mel noonu. douze pour cent ci ñu nekk seen bërëbu liggéeykaay saa su nekk ñu ngi xalaat ne loolu war nañ fa mën a fekk téeméer boo jël lu toll ci douze pour cent ñi nga xam ne ñu ngi séenu seen bërëbu liggéeykaay ne saa su ne violation mën naa dikk seen kaw boo xam ne moom physique lay doon day dal seen kaw kooku mat nañ téeméer boobu ñu juróom-ñaari nit téeméer boobu ñu juróom-ñaari nit yoo xam ne seen bërëbu liggéeykaay saa su ne ñu seenu ne mënees na leen a teg violation boo xam ne seen yaram lay dal lu ma 3 pour cent yoo xam ne moom day jàpp ne ci jigéen ñi wareef na leen mën a violer violer ci seen liggéeyukaay. waaye li gën a doy waar foofu mooy. gis nga pourcentage yi ni mu kawee ci nit ki di dund insécurité di dund am tiit di dund xel mu ñàkk a dal saa su ne ngay séenu ne yow fi nga toll nii ci sa quartier ci sa kër ci sa barabu liggéeyukaay yow fenn foo ci toll fu nekk jàpp nga ne yow yaa ngi ci danger yaa ngi ci insécurité liy firndeel ne Sénégal yi dañoo tiit xel dalut mooy soo demee ci lan mooy solution da nga fa fekk lu yéeme ndax da nga fekk ne lu mat soixante huit pour cent téeméer boo jël juróom-benn su ko yàgg juróom-ñett dañu wax ne nañ delloo si li yox peine de mort xool Sénégal ni mu bëgg jàmm ni mu lewete ni mu ragale deret ni mu bañ a fitna mais ba nga xam ne ci enquête bi saxal na ne soixante trois pour cent nee nañu nañu dugal ko peine de mort ci biir constitution bi 63 pour cent 18 pour cent yoo xam ne dañ ne dañ ne ñoom même bu duggul ci constitution bi moom nañu ko taxawal téeméer boobu ñu 18 ci nit ñi ñoom dañ ne moom même bu constitution bi nanguwul it kon nañu indi peine de mort xam nga sénégalais su fekkee dafa dem ba moom mooy wax lu mat 68 pour cent. ci population bi di wax ne nañ dugal peine de peine de mort te mooy ku rey nit nañ ko rey ci constitution bi xam nga ne su àdduna ci degré insécurité boo xam ne day wut wàllu ba accès ak moom fii te mooy nañ indi peine de mort te peine de mort boobu buñ ko seetee ndax kiy natt enquête bi dafay xool ñu dëkk ci dëkk village yi ci kaw gi di natt ñi ci taax yi dana fekk ñi nga xam ñooy wax peine de mort bu dee ci dëkk ci village yi dañu ne soixante onze pour cent yi xoolal téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yàgg benn ci ñu dëkk ci kaw bi ñoom d'accord nañ ci peine de mort ñu dëkk ci kaw bi soixante cinq pour cent téeméer bu nekk juróom benn fukk yàgg juróom ci dëkk ci taax yi d'accord nañ ci peine de mort ci ngay xam ne kon ñii sonn nañu soixante onze pour cent ci kaw bi soixante cinq pour cent ci ñi dëkk ci taax yi te bu dee ci côté jigéen ñi parce que enquête bi day laaj jigéen ñi natt ci jigéen natt ci góor bu dee ko ci jigéen ñi bu dee ci kaw gi soixante-dix pour cent ci jigéen ñi dañ ñoom d'accord nañ ci peine de mort ku rey nit nañ la rey bu dee ci taax yi bu dee ci côté góor gi ci ci kaw gi soixante-sept pour cent nga xam ne jigéen ñi sax ñoo gën a laaj peine de mort parce que góor gi ñoom soixante-dix pour cent ñi góor gi ci kaw gi ñu ngi laaj soixante-sept pour cent foofu dafa am tuut jàngat xam nga ñun li ñu jàppoon toujours mooy ñi dëkke kaw ñoo ëpp jàmm ñoo ëpp stabilité ñoo gën a dale xel ñoo gën a néewi njaaxum loolu amul ci réalité bi ndax gis nga toujours dëkke kaw ñoo gën a demandé ay sanction ci jëfkatu njaaxum yi loolu dafa am lu ci nekk tey ku xam kaw ak ñi fa dëkk waxtu wu nekk ñu ngi dëkk ci ñàkk xel mu dal total boo fa amee ak jur waxtu wu nekk jàpp nga ne sa jurum day dem wala sa bakkan dem moom benn ci ñaar yooyu wala boog nga taqali ko guub ba ci sax ñuy bay li gën a danger ñu xam nañ ne ab baykat da daan bay gerteem wala dugubam ba mu ñor bu dee dugub bu def ko ay jaag wala ay ngar ba ko ba mu soob ko bu dee gerte mu def ko ay naaf bàcc fa bu ko neexee bàyyi fa gerte ga déedéet te yëf yi demetul noonu tey soo bayee góob su dugub bàyyi fa ngar ya wala jaag ya daañu ko fab guddi yóbbu ko te mënoo ci dara soo ko defoon soo ko fa baa ñëw sa kër sam xel du dal sa bët bi ci sa tool yi lay fanaan tey loolu daal kenn sañu ko soo bayee gerte soo ko jiree juug fa gerte ga boo yeewoo doo ko fa fekkati bal ngooñ ma ci boppam dañ koy yóbbu bal naaf yi nga xam ne bàcce guñ ko tey ji baykat dañuy jàppat naaf yi naafi gerte yi ñu jal bàcce guñ ko boo yeexee te ji nit ñëw ay jëmm ñëw fab ko yóbbu comme ñi kon bu sonn doo am kon ñoo gën a sonn ndax ñu amuñu lu dul jur gi ak mbay bi moo tax gis nga kon biñ dee wutu wàllu ñoo gën a engagé ci wut wàllu bi te ñoom dem nañ ba ci peine de mort pourcentage bu toll nii ci ñoom di ko demandé jigéen ñi nga xam ñoom lañ jàpp ñoo ëpp sentiment ëpp yërmaane bëgg ñoo gis deret kuñ gis ku ne dox doom lañ la def gis nga bu dee ci enquête bi ñoo gën a laaj peine de mort ndax lan ndax sonn ndax it dañuy faral di wiit kaw dafay faral di wiit ndax góor yi dañ fay bàyyi ko ne ca taax ya kon waxtu nekk ñu ko ci insécurité ñaari jur gi ñoom ñoo koy faral di yor ci àll bi gis nga jigéen ci boppam ak sentiment bi ko yàlla jox lépp kuy demandé ak nooy fii moo demandé soixante dix pour cent ci ñoom demandé nañ peine peine de mort diggante góor gi ñoom demandé soixante sept pour cent ala kulli xaalin kaw gi ñoo gën a nekk insécurité gën a ñàkk al amn wal istiqraar seen dund gën a jàq gën a jaaxle gën a wut ay daan yoo xam ne dañ koy teg sàmba buy yi nga xam ne ñooy def lu mel noonu taax yi nañu waxi noppi ndax taax ñoom xam nga ne ñoom it fekk na liñ tade ñee mooy fii mbooloo baree ngi fi police yaa ngi fi gendarmerie yaa ngi fi ñuy intervenir amaa na ñoo ëpp chance ci ku ku ci kuy ku dal ci seen kaw ñu mucc moo tax gis nga ñoom it li ñu demandé lu rëy rëy la comme loolu wax yu gàtt la ci insécurité bi fi réew bi toll moo tax bokk yi nga xam ñoo tànn thème bii thème bi am pertinence la thème la boo xam ne ñëw na ci jamonoom tigi réew mi moom te sax natt yi ay natt la yoo xam ne enquêteurs yi yu spécialiste ñoo dem ci terrain bi def ko génne ko mu ay données yoo xam ne état da koy soxla parce que état bu bëggee def politique wala ay ak defaraat ci secteur bu ma doonoon fokk mu am fa ay données yu wóor doo ko xam ban politique lay teg ngir mën a régler problème bi nekk ci secteur boobu waaye yow mii citoyen simple bi rek yow soo toogee xool soo toogee xool ngay dégg bis bu dekk rajo bi xool télévision bi diggu xibaar bi li ñuy wax ak li ñuy gis li ngay digg ak li ngay gis yow sa bopp yow da yaay yëgal sa bopp ne insécurité ñàkk daal moom am na ci même réew xel mu dal moom manqué na ci ñun réew loolu moom kenn ku nekk sax yow yow sa nattukaayu bopp nga kenn ku nekk sa nattukaayu bopp nga gis nga li tax damay ñëwaat dinaa ñëwaat ci ci ci ci chiffres yi ndax chiffres yi mooy sénégalais yi wax waxal seen bopp seen situation moo tax dara gënu ko wóor chiffre yi ku bëgg a dégg loo xam ne da nga cay teg sa tànk ngir defar ngir xam ne li manqué manqué na li mat a defar defar na chiffres yi ay kàddu yu leer nañ loo xam ne bàyyi koo ci gaa yi nga xam ne ñoom ñoo koy dund ci terrain bi waaye ñu ñëw ci tuuti rek ci ànd sécurité bii nga xam ni moo mën la ñàkk nii la toll ci dundu doomi aadama sécurité bi nga xam ne ñun Sénégalais yi fii lañ ci toll ci manqué le ko ana lan moo nu koy may dafa am ay cëslaay yoo xam ne lim naa ko léegi bi ci jiite mooy diine ndax diine mooy jox nit ki esprit bu tranquille am ndax gëm yàlla aji gëm yàlla dafa bokkut ak aji ñàkk gëm yàlla ndax aji gëm yàlla day gëm ne yàlla jëkk ci moom te muy mujj ci moom day gëm ne lépp lu muy wut te am ko yàllaa ko koy jox lépp lu muy wut te ñàkk ko yàllaa ko ko xañ lépp lu muy wut te amagu ko dafay gëm ne mi ngi ci loxo yàlla bu soobee yàlla mën na ca jot kooku yàlla diine da koo yar muy koo xam ne ragal na yàlla su boobaa du tooñ du sàcc du rey du agressé du siif kooku l'islam da koy yar moo tax diine lu élément bu am solo la ci luy indi tranquillité ak sécurité ci am réew ala bi zikrillahi tatma innul qulub ala bi zikrillahi tatma innul qulub féete ak yàlla di tudd turam bi di dudd di ko dudd dund yàlla mooy jox nit xel mu dal moo jox nit xol bu dëf boo xam ne dina mën a am jàmm dina mën a may jàmm xam nga mboolem safaan yi xeetu sàcc yeeg viol yeeg xeetu siif yeeg xeetu rey yeeg tuur deret yeeg ak fëkk alal yeeg yooyu yëpp ay bakkaar la diine ci boppam moom li mu def mooy bakkaar yi ak mooy yi day tadmir ba maanaa day alak aw askan fa kullan axasna bi zambi borom bi nee na am na ñoo xam ne dama leen labal bu ma leen di alal dama leen labal ndax seen bakkaar bakkaar yi ñu def am ñoo xam dafa fab suuf jàllar bi ko ñu féete suuf suuf féete leen kaw ndax bakkaar yi ñu def am ñoo xam ne dafa taw ay xeer ci seen kaw ah am ñoo xam ne ak kàddu gu gu yuuxu la yebal ci seen biir ba mu yuuxoo ñëpp ne wëlan tàqali koog seen ruu faatu fa kullan axasna bi dambi kon bakkaar yi ak mooy yàlla yi day alak aw xeet ak fu dooleem mën a toll qaryatan aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi anhumillahi fa azaqaha llahu libasa aljui walxawf aaya bi di wax ne zahara alfasadu fi albarri walbahri bima kasabat aydi nnas liyuziqahum bada alladi amilu laallahum yarjiun kon diine dafay jàngal aji gëm ji ana fan la war a tànkam lu mu war a def ak lu mu wërta def nu muy amee nu muy amee xel mu dal nu muy amee xel bu dal nu mu amee xol bu dëf li nga xam ne mooy dox digganteem ak wërsëg dox digganteem ak yokkute digganteem ak ab jàmm loolu diine dëg koo aaye nu ngi koy wattandikoo ci loolu lañ koy yar muy ay baax di ay valeur yoo xam ne su ca dundee kooka moom élément la boo xam ne facteur de développement la waaye facteur la boo xam day lëwal di yaatal sécurité ak xel mu dal waaye du ko yàq mukk moo tax diine ci gàttal lu am solo la gis nga lislaam li ñuy waxoon li ma waxoon sànq borom ko tuddi ko ak daruraatu xam sa wa kulliyaatu xam sa muy juróomi yi fii nga xam ne moom la diine yëpp sax doon sàmmal doomi aadama te mooy diine lislaam dafa assuré nit ki diineem diineem ba nga xam ne kenn wër ta dox digganteem ak diineem ngir sàmm diine ngir assuré ko tamin ko moo tax mu am di jihaad wa qaatiluhum xata la takuna fitna wa yakuna dina kulluhu lillah kon ngir aar diine mu indi sax jihaad man maata duuna diinihi fa huwa shahid ku défendre sa diine ba faatu loo sax far yow shahid nga da ngay dugg aljana noonu kon mu sàmmal ko ba tey am xelam moo tax sàngara ak mbooleem bi nga xam day màndal nit da koo xaraamal ku naan ku ko naan dana la caw mu war a sàmm am xelam mu war a sàmm alalam mu atare riba gis nga sàcc ku ko def nañ dog sa lox mu araamal riba ak bépp faggutif boo xam ne faggutif bu daganul la xeetu nax la ngir lan ngir sàmm alali nit mu sàmmal ko ba tey bakkanam bakkanam ba nga xam nit ki sëñ ta rey boppam sëñ ta xaru waaye kenn sëñ koo rey ku ko rey fa ka annama qatala annaasa jamian wa man axyaha fa ka annama axya annaasa jamian saa boo reyee benn bakkan mel na ne ñëpp nga rey ndax yaa indi insécurité totale xoolal 14 morts yi ñu doon tudd 2021 14 morts boobu ak tey ñu ngi ko tudd ci lami ñu ngi mel ne boobu ak tey li fi dee ci accident oto yi ak ci hôpital yi kenn xamul nu mu toll waaye kenn du wax tey ñu ngi ci jox 14 morts yi ndax doomu aadama kenn daa amul droit rey ko ni nga xam ne amul droit rey boppam kenn amul droit rey ko moo tax gis nga fa ka annama qatala nas jamian soo ko reyee day mel ni ñëpp nga reyal day mel ni ñëpp nga rey naka noonu soo ko xettee ba mu dund yi daf mel ni ñëpp nga dundal kon diine dafa assurel doomi aadama ba tey bakkanam noonu la ko assurel ba tey ab deram bëggul ku ko tegi tuuma bëggul ko li ñuy isaatu alfahisha yuhibuuna an tachia alfahisha fi alladina amanu lahum azabun alim fi dunia wal axira ñi nga xam day tasaare aw ñaawtiif topp nit tuumaal ko taqal ko tem bari léegi loolu suñu borom dafa sàmmal nit ki diineem ba nga ab deram ba xam ne tuumaal ko jiw ko rambaaj ko reetaan ko sabot ko piis ko biiñ ko lu nitu ko yëpp suñ bopp da ca wàcc ay aaya ngir sàmmal ko nit kenn ku nekk lii moo mën a jox askan wi stabilité moo mën a jox askan wi dëgg-dëgg xel mu dal kon diine moom laa budda minhu diine mënu cee ñàkk diine moom mënu cee ñàkk rasulullahi gàngal na saxaay ba saxaaba yi ba mu yàgg mu ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min waat naa ne kooku gëmul yàlla waat naa ne ko waat naa ne kooku gëmut waat naa ne kooku gëmut boobu ñetti yoon saxaaba yi jàpp ne ko man huwa ya rasulullah ana kan moo gëmut mu ne alladi laa ya'manu jaarihu bawa'iq koo xam ne dëkkandoom bi munta mucc mukk ci ay ay aw ayam rasulullah ne koo xam ne ci nga dëkkan munta mucc ci saw ay ayu lammiñ ay loxo ayu pexe ay jëw ay rambaaj ay lu mën a doon rasulullah ne ko yow gëmoo gëmoo al muslimu man salima al muslimuna min yadihi lisani jullit mooy koo xam jullit ñi mucc nañ ci aw làmmiñam mucc nañ ci ab loxoom kon gis nga lislaam cislaay bu wóor la boo xam ne fokk ñu jàngal ko nit ñi fokk nit ñi jàng ko fokk ñu yar ci nit ñi fokk ñu xamal ay valeur am nit ñi kilifa yi nga xam ñoo fi nekk di ko sàmm di ko garanti di ko yaatal di ko jàngale di ko jàngalu ñooñu fokk ñu ànd ak si ñoom taxaw ci seen wet te xam ne diine ci boppam mooy cis cislay bu njëkk bi balaa ndax balaa ngaa am istiqraar daluk aw yaram ak cër da nga am istiqraar ci sa xel mi ba noppi da nga am istiqraar ci sa xol ba noppi ulaika lahum al amn wa hum muhtadun kon diine moom cislay la boo xam ne mënta ñàkk su diine jàllee ñu ñëw ci état état fokk état am yépp xeet woo xam dañuy dund te amut état bu leen boole ci fawda ak pëccëxoo ci lañuy dund seen menn mbir du taxaw seen menn mbir du sotti état mooy ki leen di boole ki leen di boole bu leen boolee ba noppi mooy koo xam ne day organiser seeni dund di sàmm seeni njëriñ di leen fegal ay daan di fokk ci lépp loo xam ne moo leen di may noflaay ak xel mu dal kooku état bu dal moo ko man waaye état bu dal mi ngi amee ak dal ci état mi ngi amee ci mu am légitimité la mooy légitimité mooy état boo xam ne ñëm yi dikk ñoo ko fal ci seen teg bakkan ñoo ko fal ci seen ceeg bakkan état boobu am na légitimité ca biir ñun ngi muy benn li tax état nekk état bu dal day fekk bu am confiance ña nga xam ne ñoom la yilif ndax gannaaw ñoo ko fa teg ñoo ko fal su boobaa kon dañ koy nangoo dimbale fu mu leen woo daañ ko fa wuyu ci lépp lu koy dooleel su ko defee moom it nag muy sàmm seeni njariñ di aar seen sécurité di nose seen dund di régler seeni problème di leen laaj buñ ko joxee mu di ko delloo ci ñoom yemale leen ci ëttub ëtt biy teqalee muy ëttub atte bi yemale leen yemale leen ci kanamu occasion yi mooy kenn ku nekk sa compétence ak sa sens lu mu la jox ci sa cër ci àddina nga jël ko bu ñu fab kenn teg ko ci kaw fenn kenn ngir ah yaa ma neex déedéet nañ yem ci kanamu ëpp bi yoon waaye nañ yemit ci njëriñ yi ku ci nekk sa compétence sa man-man sa xam-xam sa sa sa jik lu mu la ca may nañ la ko jox su ko defee mu yombalal nit ñi ci liñ koy jox li muy laaj bu ko jur mu yombal ci nit ñi ñu jàng ñenn ñu ne jàng lañ war a jàng ak lañ bëgg a jàng fii nga xam ne loola nekk luy tasum réew dafa war a jàpp te loola du jàng ko ak fuñ mën a nekk mu war a taxaw seen wér-gu-yaram fuñ mën a nekk ñuy faju di am wér-gu-yaram taxaw veillé ci seen sécurité fuñ mën a nekk ñu am sécurité bu leen aar fuñ mën a nekk mu yombal leen seenub dem ak seenub dikk lépp loo xam ne seen li ñuy wax ay ay ay ay ay àq la xuquq madani yi mu leen ko yombalal kooku état da ko war a def état ba koy mën mooy état boo xam ne état bu stable la ndax dañ koo tabax ci anam bii ma la wax su ko defee état boobu it dafa am tislay boo xam ne mooy doon kilifaam ñu koy wax constitution benn mu nekk charia wala mu nekk ad dustour ndax al muslimuna ala shurutihim jullit ñi muñ dajee ba tëdd seenu dëstuur mooy constitution voté ko gërëm ne d'accord nañ ci te muy dëgg kooku su boobaa mën na leen a atte kon état boobu lay tax mu doon état bu légitime nekk état bu fort mooy day sukkandiku ci constitution boo xam ne constitution philosophe bi ñuy wax Emmanuel Kant di allemand te nga xam ne bokk ni kilifa yi boroom xam-xam yi nga xam ne seen xalaat la état européen presque di taxaw état européen daanaka ci xalaat yi ñi nga xam ne ci seen xalaat la tabaxu Emmanuel Kant ci la bokk Kant dafa wax lu am solo bokkut ak li li ñeen li ñuy wax Kant dafa wax ne état dafa war a wéeru ci constitution mu ne constitution fu ñu koy tabax mu ne constitution ñu ngi ko war a tabax ci valeur valeur ñi ko moom li nga jooju wax xiyam valeur ñi ko moom seeni aada ak seeni baax ci la ñuy tabax ak constitution muy lu am solo su ko defee état bu dikkee tegu ca kaw seen i baax di wax lu ñu xam di def lu ñu xam di def lu ñu gërëm déggoo ak ñoom di wokk fi xasan ni ñu koy wax di wokk fi xasan ndax état day ñoom la ñi ko ñi ko far la ñi ñi ñi ko jox constitution la kenn daf ci boole wax ne ana discours yi constitution luy war fa mooy sàmmal ñi ko ñi ko ñi ko moom seen baax yi nga xam ne moom lañ ko tabaxe kooku mooy li liggéeyam bu njëkk moom constitution mu teg ci wax ne constitution dafa war a sàmm li mu war a njëkk a sàmm mooy ak maandu te ci aw ak askan ak maandu te jàmm ci biir aw askan ak dal ak it jot jot ci seeni droit ne constitution ci lii la war a njëkk a jox ay considération saa bu duggee di wax état boobu nga xam ne constitution ci lay wéeru constitution ci boppam ci moom lay wéeru bi maanaam constitution mooy tënk ay compétence am ba nga xam du ko génn benn constitution bi muy tënk ay compétence am ba sañu du ko sañ a génn saa bu ko génn nañ ko te delloosi muy état boo xam ne it ay wujju politique am da leen di defee nawle di leen déglu wa amruhum shura baynahum di di leen consulter di wax ak ñoom ndax moom état li mu xam la ñuy xam ñoom it dañoo am programme boo xam ne moom nañuy propagande bu ëllëgee ci lañ bëgg a tabax état bi ñuy yuutu ñoom it kon ay naw lañu mu ne kon nañ leen jàpp ay partenaire di ay naw la muy wax ak ñoom société civile bi it na leen yóbbaale ñu nekk ay partenaire état boobu fokk mu séparé ñuy wax ay pouvoir pouvoir bi nga xam ne moo ñooy exécutif bi nga xam ne ñooy état bi nga xam ñooy doxal ak kii nga xam ne ñooy législatif bi nga xam ne ñoom ñooy tëral yoon yeeg loi bi ak bii nga xam ne pouvoir bi nga xam mooy judiciaire bi mooy ñu yor yoon ak atte yi nee na fokk ñu séparer séparation bu biir ñetti pouvoir yi ba nga xam ne kenn doom influence ci kenn ku nekk ba nga doxal sa bopp la la war ci tëddee njaaxaanaay war a liggéeyal population bi nga xam ñoom ñëpp ay jumtuwaay lañ yoo xam ne ki ñu war a liggéeyal mooy askan bi rek kenn ku nekk liggéeyal askan bi ci liggéey ba nga xam ne moo war ci sa waar nga xam ne mooy programme bañ la ca jox mooy lan lan la ca yoon liggéeyloo lii nee nañ lii mooy état ci mooy état kon ci gàttal état daal fokk mu nekk état bu légitime fokk mu nekk état bu stable fokk état boo xam ne priorité de priorité li ko tax a dëgg dëgg dëgg comme ni ko kenn wax mooy liggéeyal aw askanam bañ am dund goo xam ne xayaatan salima wa amina dund goo xam dund gu mucc la dund goo xam dund gu dal la dund goo xam ne dund gu stable ci mooy li état yi war a jëkk a yittewoo teg ci bëtam def ko muy yitte su boobaa nag parti yi nga xam ne ñooy wudd yi ñoom nag ñoo koy fekk seen dama ko ñoo koy fekk ñoo koy fekk ñoom it am nañu ay devoir boobu seen devoir mooy ñu am programme boo xam ne ñoom it dañ koy wan nit ñi di leen ci propagande di leen ko di leen ko ngir mën a jot ci nit ñi ci seen àq la bokk waaye it di contrôler état bi ci lan lañ koy contrôler état bi bis boo xam ne ñu bëgg a génn constitution ñu arte ko yuuxu ko bu fekkee bi nga dugg ci loo xam ne compétence am ak bu cëf ñu artu ko yóbbu ko su fekkee ne mi ngi alalu doole réew bi di ko dugal foo xam ne bokkut ak intérêt réew mi ñu artu ko yóbbu ko kooku ñoom ñi li ñu gëm état moo de li ñu gëm yii ñun dañ koo gëm ñun dañ koy wax waaye ñoom ñoom ñoom ñoom moom lañ jàng moom lañu gëm moo ñu seen constitution moom la ñuy waxtaane mu mu te mooy yii su ko defee nag opposition bi moom it na respecte état xam ne moom la ñu fal moo yor kilifteef bi atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum état moom it kon dañ koo war a jox àqi topp ko àqi topp ko waaye doo ko ñàkkal fayda doo ko weddi doo ko jiima nasaxal ngir ne rek dañ ko opposé déedéet yow it jox ko cëram bi ko nit ñi jox te moom lañ fal nga yóotu li ngay yóotu sa ay tànkam ci ay say pexe ba man caa jot waaye nag du tee da nga ko nangul ndax loolu mooy indi stabilité alquran dafa yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum damay wax ne suñu borom ci sañ-sañam bind moo def lépp te kenn fekku ko ci bu ko joxoon mu ne atiu llaha yem ci topp leen yàlla lu keneen wax déedéet li yàlla wax képp kon su boobaa dana wéy waaye yàlla moom danaa su waxee wax ju jeex la kenn du ko nafaraat ngir yërmaandeem ci doomi aadama yi ci ëpp souplesse gën a nooy mu ne wa atiu rasula nit kim yebaloon ci yéen moom it topp leen ko ni ngeen topp yàlla ndax lu mu wax yàlla ko wax rasulullahi mbiram gën naa yéwén gën naa nooy ci jaam yi ndax neewoon na leen su ma leen waxee sa mbir diine loo xam ne xamu leen ko ah seetaat leen ko kon gis nga kon dana may ñu topp yàlla ca la mu doon moom yàlla topp rasulullah ci lii nga xam ne mooy ndawal suñu borom suñu ni ci ñun ñu man di gëstu ci ay waxam di ko leerluwaat waaye mu gën a ëpp indiwaat yërmaan yi gën a joxaat doomi aada yi espace de liberté bu mën a gën a yombale seen dund mu ne wa wa ulil amri minkum kilifa yi nga xam ne sax minkum sax seen lañ du ñu ay jàmbur foofu lépp ngir dëfal dalal xel yi ne ñii nga xam ñooy kilifa yi nga xam ñoom dañuy dellu ci yàlla dellu ci rasulullah yi waaye ci yéen lañ bokk yor seen i xel yor seen i valeur di bëgg seen bëgg di bañ seen bëgg seen seen bañ am yërmande ci yéen jaboote leen kon ñi yeey na ngeen topp leen ulul amri minkum moo xam ulul amri moo xam état lay doon maanaam kilifa yi mën nañoo doon ñeer kilifay aada mën na ñu xam kilifay diine wala kilifay waaw waaye li ci ma nekk dafa war ci ab jaam dafa war ci ab nit bu topp ulul amri minkum kenn warut a génn ci seen kaw kenn warut a jaxase seen i wax kenn waru leen a fakkastal kenn waru leen a fakkastal dañu la war a déglu te di leen topp te di leen laabire di leen dolli xel di leen leeral loo xam ne leeru leen état dañ koo def ni ko xukmaa yi di waxee inna allaha jaala almuluka lirraiyati walam yajal irraiyata lilmuluki yàlla buur baatu buur sax baat la boo xam ne wuri su koy waxati ndax koo xam ne lu dul ñun ñoo ko teg ko foofee gis nga kilifteefam du kaay leen def leen nii ba leen nii lekk leen nii naan leen nii taxaw leen toog leen kooku du kooku du mbirum buur du mbirum nguur déedéet nguur dañ koo dénk dañoo boole dénk ko ni ko téyal ñu te lijjantil ñu kon baatu du sax buur ku ñu fa wuutu rek la ku ñu fa wuutu waaye xukuma yi dañuy wax ni yàlla dafa def buur yi ñuy surgay baadoola yi bi maanaam ñuy surgal pop surgay population yi waaye du ko ni population yi ñuy surgal surgay buur yi muy qaayda bu am solo buur surga population la waaye fekku ni population mooy surga buur kon buur dafa war a xëy ak gont faw di liggéeyal ak population am waaye wër ko mën a jëfandikoo population ci yeneen yoo xam ne amaana njariñal boppam kenn la su ko defee li ñu wax al xuruju ala al xaakim te mooy weddi buur mustalax la terme la boo xam dafa ñëw ci sharia islamiya waaye terme politique la man génn ci kaw buur mooy weddi buur weddi buur maanaam mooy nga weddi ko man weddi kilifteef mën a fab nga naa jëm ci kaw kooku lañ jublu ci terme boobu al xuruju ala al xaakim kooku kenn sañu ko sallallahu alayhi wa sallam ci ahadisam yi jàngale na ba tay ñoral na ba tay ngeen topp buur alaykum bisabi wa taa wa in taamara alaykum abdun xabashiyun ka an rasahu zabiba dénk naa leen ngeen wax ngeen di topp ndigal yi ndigal yi kilifa yi di ko dégg di ko topp donte këleen këleen këleen yi di tey ak jaam bàyyi ko xabashi ba daa sew ba benn zabiba xoolal waxin la fokk ñu dégg ko dénk naa leen ngeen di dégg ndigal yi ak di ko topp gis nga dégg ndigalal kilifa ak di ko topp day indi jàmm muy indi ak dal dañuy wax ne maanaam jawru xaakimin sana afdalu min isyaani shaabin saatan xaakim ci boppam wax la ñu neexul nag ci ci ak it léegi si ak xelu bees yi waaye dafa am loo xam ne maa yajibu an yakun wa ma huwa kain am lox mooy réalité ñii dañuy wax ne xaakim boo xam daa dëng di dëng atom yàlla di dëngal atom yàlla muy dëngal moo gën a woyof population bu jukk ne tey ñu dindi dëngam googu fenn saa kenn ci dëngal atom yàlla moo gën a woyof kii nga xam ne dafa jógandoo ne dina ko jubbal ci fenn saa lee moo gën a woyof bi ngir lan ngir ngir am tranquillité ak sécurité rasulullah day wax ne dénk naa leen ngeen di dégg digal yi ak di ko topp teg ci ne bu leen seeni bokk yi di fee bii leen ko def bu leen li ngeen xam yi di fee leen ko def leen war a yilif yilifee seeni xeet leen ko def ba sax bu leen koo xam ne waru leen a yilif jamono moo ko indi ci seen kaw wa in taamara aleykum abdun xabashi ku nekk xam ne ab quraysh ab qurashi ab hashimi kooka fan toll ci degré yi ak judd bu judd bu rafet ak sellu askan buñ demee ba nga xam ne ab jaam bu bàyyi ko Éthiopie yor couleur bu ñuul moo ko yilif xam ne dafa foqar ci nguur ga waaye jaar ko ci yoon yóbbu ko ko fa waaye kooka ak bis fekkee dem na ba yor doole ja yor ndigal ya ak tere da ngeen ko bàyyi xel ak lu bu ñaaw ñaaw sax bu taara woon sax askan waaye doonte ko ñaaw la benn nit ki muy wax am na xadis boo xam ne moom lay tëje foofu ci ko nattali di junaada nee na damaa ñëw ci ubadat ibnu saabit fekk ko mu wopp lool fekk ko mu wopp lool ma dikk maak ñi ma àndal bi ma dikkee ne ko yàlla na la yàlla saafara waaye dañoo bëgg nga wax ñu xadis boo xam ne dégg nga ko ci yonent sallallahu alayhi wa sallam dana la jëriñ daanu jëriñ ñun ibnu saabit ne ko ne ko waaw ñun day yonent bi daf noo woowoo nu dikk mu jaayante ak ñun ñu jaayante ak moom la ñu jaayante woon day bokk na ci ala sami wa taa nañ ko dégg nañu topp ndigal yi nañ ko dégg ci di ko topp moo xam neex nanu moo xam neexunu moo xam ci jafe na ci nun ci jafe-jafe lan fekk moo xam ci yomb yomb lanu fekk doonte sax day tegg ci kawam dinu teg maanaam bu njëriñ dikkee mu féetewoo ko la ca gis moom njëriñ la mu féetewoo ko la gis mun ñu bàyyi koog nun wa an la wa an la nunazia al amra ahla jaayante nañu moom it ci mbir mi buñ ko xëccoog ñam ne ci seeni loxo dafa dox ba dëj seen loxo ci ay yoon da doo ci génn ci ay yoon ne nañ wéyeeg moom ca loola jégg topp ca noona bu neexee bu neexut bu yombee bu jafee bu ñu xëccoog ñoom bakkañ nag loola bakkañ mu ne illa an taraw kufran bawaaxan indakum min allah fiihi burhaan ba ba ngeen di dem ba gis muy wax ak kéefër moom koo kay leen di def wala muy jëf ak kéefër gu leer te it am ngeen ay firnde ne kii ak kéefër lay wax kéefër lay wax moom lay jëf su boobaa sañ ngeen a génn ci kawam damay xam ne foofu xuruñu alxaakim génn ci kaw buur foofu situation yi foo ko kii état ci état diine sax lay wax état diine koo xam ne kañu fal dañ koo fal bi xukm ne moom jullit la mu atte ñu bi xukm ne moom charia lay doxal ci moom ba dee contexte bi moom la waaye ba tey li ma waxoon sànq ne constitution ba noppi moom it su fekkee ne charia andiwul aynama wujida al adlu aynama yakunu adlu fa samma charullah ibnul qayim moo ko wax adlu dafa rëy fa yàlla da koo ñorom ba tax sax ne boroom xam-xam nee nañ li tax mu yónni yonent yi wàcc téere yi wa anzalna maahum alkitaba wal mizan li yaqumu annas bil qist mboolem ak diine yi yonent yi téere yi li tax ñu dikk mooy ngir ñu taxawal maanu ci kaw suuf ñuy wax ni sultaanun aadil afdalu min matarin waabil buur boo xam ne daa maandu moo gën ab taw bi waane moo gën cib réew taw bi waane ibnu qayyim wax ne maandu foo ko fekk sharia yàlla la sharia ni foofu ndax sharia lépp ruuxam xam mooy al adlu ci lépp sharia ak kenn yëpp ruux gi mooy al adlu kon foo fekk ruux gi fa xam macha allah sharia nga ko ibnu taymiya di wax ne inna allaha yuqimu addawlata al aadila wa in kaana kaafira wala yuqimu dawla zalima wa in kaana muslima suñ borom dina dooleel dina dëgëral état boo xam ne état bu maandu la doxal ak maandu donte état ba sax état kéefar la suñ borom dana ko dëgëral ndax maandu daa tax waaye du jàppale ak état buy tooñu doonte nee na état jullit la kon maandu dafa rëy fa yàlla waaye dafa rëy fa yent yi waaye dafa rëy ci jàmm yàlla yi damay wax ne jullit ñi muy dëppoo ci nos constitution su boobaa mooy seen charia ba ba ñuy mën a am charia na ak maandu nekk tañ tabax ko ci seeni baax su boobaa lii ba mën a am xuruju alal xaakim génn ci kaw buur bu dee ci charia ila an taraw kufran bawaaxan dina ñëwaat sax ci baat boobu ak ni ko xokkama ni ko ni ko borom xam yi firee waaye dafa am xuruju ala dustuur kon fekkee dawla dustuur yi la mooy dawla état constitutionnel kooku kon constitution ba mooy téere ba génn ci rek kon day am xuruju ala dustuur day am bis boo xamee ne buur kon génn na bi maanaa juuyoog dustuur te moo ko tey ñu delloo ko ci mu lànk su boobaa kon war naa wax ak moom artu ko ne ko del ci ci ci la nga xam ne moom mooy dustuur kon la fee donte l'islam la kooka mbirum l'islam la waaye li fii ba tey kii mbirum constitution la te moo tënk jullit ñi waaye daal kon état bi noonu dara ëpp ko solo ci installer stabilité ak tranquillité d'esprit ci aw xeet bi maanaa sàmm leen ci dal sàmm leen ci xel mu dal tax ñu am dignité su ko defee nag mu yombalal leen li ma ko wax am njàng am paj yombal leen ñu am dox leen sécurité yombal leen dem ak dikk ila axiri yi kooku mënta ñàkk su boobaa buy def loolu xaraam na ci jaam bi ci citoyen muy génn ci kaw état boobu di ko déstabiliser ak di ko jéem a di ko jéem a fakkartal baatub al adlu maandu gi faf naa ko boros ci biir état bi xanaa li may mujj kon mooy iqtisaad fokk nag dëgg état boobu doon état bu am jom boo xam li koy gën a ñor mooy lan mooy may xeet yi dund gu neex te mënta am lu dul mu jëf yitteem ci wàllu développement ñi nga xam ne dañuy bay ñii napp ñii sàmm métti bu waay na ma mën a yor état war na la ca fekk dooleel la ca bu dee ci koppar bu dee ci expérience ak xam-xam fonk formation formation former nit ñi ba ñu amee compétence kenn ko ne secteur ba nga occupé nga mën caa dem bu baax am ca loo tedde ndax kat laa am na ma al faqri ak loo mën a wax fi mu ne nii ñàkk moom ñàkk moom munta ànd ak ak dala ci ndax ak ñàkk dafa am yeneen lu muy def ci nit ki ñàkk day indi ñàkkum liggéey ndax ñàkk foo ko fekk ñàkk liggéey ko jiite ñàkk liggéey day indi féex doo def dara féex day indi indi ay xalaat nga dem ba nga am déception commencé ñu mi dañ laa nax dañ laa xañ nga commencé di am koy een sa xel tàmbali jug ngay jéem a venger ak di wut a am ci beneen façon naka jëkk ñàkk am liggéey ci aw ay gone moom fii lay mujj moo tax mbooleem jàngkati économique yi ñiy def ay gëstu ci économique ñoom ñëpp lëkkale na diggante ñàkk ak délinquance comme ni cigarette lëkkaloog li ñuy wax sarataan ñu tuddee ci tawat ju bon jooju ah cancer dañ ne ñàkk ak defi defi njeexum ñii dañ lëkkaloo ni tox cigarette lëkkaloo ak cancer kooku nag ci société yëpp la kon bokk na liy tax ak dal am ci am réew liggéey am liggéey nag état da cay teg loxo da cay jàpp moo cay premier acteur acteur liggéey li te bu baax liggéey day indi ak stabilité dina liggéey xool ko bu baax day fab ci ci temps bu bari temps boo xam ne du ko am jot di ko def feneen kon day fab ci nit ci temps bu bari benn day fab ci xel nit ki lu baree baree bari ndax diggante fi muy xëy ak fa muy wàccee ba fa wàccee danaan siiwa tëdd nelaw xalaatam du dem ci yu baree baree bari yoo xam ne mën na ko yóbbu ci ay njàqu kon liggéey dafa baax day fa temps dafa xalaat di fa di cawarte ci nit ki potentiel bi ne ci yow cawarte bi da koy jël ci yow da ci jël lu bari la xam bu ba paree ci yow da ngay bëgg a ne noppam moo tax may wax ne liggéey liggéey dafa am sax day xaw a mel ne kaso kaso nag si ñu irab yi liggéey dafa mel ne prison waaye prison volontaire la ndax daf lay téye liggéey daf lay téye ba nga xam ne yu baree bari doo ci mën a dugg su ko defee état kon dafa bokk ci dëkk war ma tëj ko ci ñetti tomb rek ci ci ci ci ci ci natt bi nga xamoon na enquête bi def bi ñu ñëwee ci wàllu lan mooy solution yi solution yi njaaxum ji mu wax sànq nga xam ne nit ñi ñu ngi dund ak tiitaali ak njàqare ci ku leen ku leen di violé ci wàllu violation yu yu yu xeetoo dañ ne fukki sénégalais yoo jël ñeent ña boo ko boolee muy quarante huit pour cent nee nañu liy tax sécurité am ci réew mi tranquillité am ci mooy ndaw ñi nañ leen wutal liggéey kooku pourcentage bu bëree bëri la quarante huit pour cent dégg nga ba cinquante cinq pour cent ci geneen wet nee nañu jumtuwaay yi indi tranquillité balda waaye bi ci gën numéro un bi mooy ndaw ñi nañ leen jox ab liggéey kon gis nga liggéey day indi ñooñu nga xam ne ñoo doon wax ñoo wax lii nañu jox liggéey ngir muy lenn ci solution yi ñoom it ñoo wax ne nañ ci indi peine de mort ndax lan kii délinquance ba criminalité moom di ko mën arrêté mooy an nafs bi nafs al ayn bil ayn wa anfa bil anfa al uzn uzn moo ko mën a jël te muy bakkan ci bakkan kooree ñu rey la ila axiri kon daal mbokk yi bu ma delloo wax ne kon ak dal xel mu dal nii la amee la ci dund gi waaye cëslaay yi fokk ñu daje xel mu day mën a mën a am xanaa li ma tuddul cëslaay yi mooy mooy média bi média lu am solo la ndax média mën nay fayag daay waaye mën na koy xam te gis nañ leen ci réew mi surtout nag jamono bi xam média bi dafa ubbeeku li ñuy wax réseaux sociaux yi te lépp di média lépp di di yulli moo tax fokk ñu jàngaat tarbiya liy wax ak tarbiya ilaamiya te mooy nan la ñuy éduquer njaboot bi ci nan la ñuy jëfante ak information ba nga xam ne daañ ca mën a jariñu te duñ ci gaañu kon mbokk yi lii moo doon waxtaan bi lii mooy solos am na ba istixraar ak dal ak tranquillité waaye yii cës laay ci lay mën a taxaw e kon yal na yàlla defal nu ndimbal ci suñu réew ñi nga xam ne ñooy sabab ñàkk a dal bi li ci ëpp gis nga ko mooy deskatu njaaxoon yi samba booy yi état bi wax dëgg yàlla moom it responsable la ci ndax waxtu woo xam ne tranquillité politique maanaam dalu politique amul rek lu ne mën na cee mën na cee dugg donte sax njaaxum yi ñuy wax ak samba buy bi li ci ëpp ëpp seen yoon newul ci état politique bi lay def dañ koy def ci seen coobare bopp ak seen fiiti bopp ak seen pexe bopp waaye ñoom politique bi sax jeexitul ci ñoom dara dara dara dara allahuma lu ñu bokk ñu tudd ay nervi yu ma xamut ko ñoom ñoom ba tey ku ba tey ci njabootu politique lañ bokk fu ñu atte attewale leen kon daal bokk yi léegi noonu ñu ngi yem foofu yëgalu bu baax lu ci leeru ci leeral doomu luñ bëggoon luñ ci wax yàlla yàlla jëriñ ñu ci jëriñ ñu ci jëriñ ci di dégg ji di dégg di jégalu bu baax wañu ko di gërëm di ndokkeel muqaddamat xidma di ñaan yàlla borom yokk leen ay ndam yokk leen ndimbal def barki sëriñ yi ko defal ko ñun ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu